asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwan wa tamkin inna alhamdulilahi nacmaduhu wa nastacinuhu wa nastaxfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmalina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 wa sharrul umuuri muhdasaatuha wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaal bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe bokki jullit yi noo eh, nuyu bu baax a baax di leen siyaare di ñaar jàmm te ko sàkku di leen nuyu fii kër gii di M-Media Group Nourou Darayni ci njiital Serigne Ngom Gningue ginnaaw bu ñu sante suñu borom tabaaraka wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jaajëfal seexuna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi albaaxi alxadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fayal nu ko waaye di ñaan bu baax a baax a baax a baax mbokki jullit ñi rawat na kilifa diine yi nga xam ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew waaye de beral nuyu bi ak bi di ko jaar ci ak seex Muhammadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér ba li nga xam ne moom la nam ma liggéeyal lislaam mu àggale ko foo koy jortam ci mel ni noo ngeeg yéen ci sunu euh, barab bii di mu media Group ci jataay bi nga xam ne moom la ñu euh, duppee zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil mu'minina wal mu'minati doon jataay boo xam ne jataay la bu bees boo xam ne mi ngi amee ci kër gi di M-Media Group Nourou Darayni mu mel ni jataay la boo xam ne laayanti biir lañ ci jublu waaye laayanti biir ñeel sunu mbokki jigéen ñi ñi nga xam ne Ah, ñooy sunuy yaay ñooy sunuy bàjjan ñooy sunuy soxna ñooy sunuy mag ñooy sunuy rak ah, teg ko ci xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moo wax ne addiinu an nasihatu ah, jële nañ ci muslim mu jële ci jële nañ ci muslim mu nettali xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne addiinu an nasihatu xadis boobu muslim eh, nettali na ko abu dawud nettali na ko nisaa'i nettali na ko eh, tamimu daar nettali na ko tirmisi nettali na ko abu eh, abi hurayrata nettali na ko ahmad nettali abdullahi ibnu abbas nettali na ko wax ne jël ci yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi aimati almuslimina wa ammatihim diine laay biir la laay biir ñeel suñ wa taala waaye laay biir yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye laay biir alquranul karim waaye laay kilifay diine yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam waaye lay biir mboolem jullit ñëpp rek mu mel ni wax nañ lay biir suñ boom subhanahu wa taala wax nañ ci lu bare bari waaye dañ ci jël benn rek wax nañ ci laay biir alquranul karim wax nañ ci lu bare bare wax nañ ci laay biir yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wax nañ ci laay biir euh, mboolem kilifa yi diine wax nañ ci lay biir mbooleem jullit waaye bu ci nekk dañ ci jël benn rek insha ngir bañ euh, jataay bi gudd mu mel ni lay biir suñ borom subhanahu wa taala mooy nga soril ko lépp loo xam ne moo koy wutal dendandoo mooy nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala kenn rek la jinn jëmm la amutam ñaareel ci melokaanam bi ci jëfam ji ci dogalam bi laay biir alquran alkarim mooy nga gëm ko xam ne téere la boo xam ne suñu borom moo ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa te mu doon loo xam ne wuute na ak waxi mbindeef lépp lu ci nekk rekk dëgg la waaye laay biir euh, mboolem kilifaay diine yi mooy nga gëm leen wóolu leen euh, xam ne ñoom ñooy doon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di ci di dimbalanteeg ñoom ci jëfi seeni digal waaye bàyyi seeni tere laayanti biir eh, alquranul karim wala nga ne laayanti biir mboolem jullit ñi bu ko defee laayanti tibir mboolem jullit ñi nag mooy eh, xañ na bi nga xam ne moonu tax a jóg eh, bu dee yee moom bu ci nekk yaatal na lool waaye dañ ci jël rek waaye yaatal na lool ci lan mooy laay biir suñu boom subhanahu wa taala yaatal ci lan mooy laay biir alquran karim lan mooy laay biir yonent yi alayhim asalaatu wasalaam lan mooy laay biir kilifa yi diine yi ba agsi ci lan mooy laay biir mbooleem jullit ñi mel ni mooy tomb bi nga xam ne euh, mooy bi ñu tey ci euh, tomb bi ndax ñu wax ne addiinu an nasiha lillahi wa euh, kitaabihi wa rasulihi wa aimati muslimina ammatihim moo tax mu wax ne li ammatil muslimina fa hiya irshadihim li salaahi lisalahihim fi amri axiratihim wa dunyahum wa i'anatihim bil xawli wal fi'li wa sutru awratihim wa daf'i mudarratihim wa jalbil manaafi' lahum wa amruhum bil ma'rufi wa i'anatihim 'anil munkari bir rifqi wa ikhlaasi wa shafaa'ati wa tawxiiri kabiiruhum wa rahmatu saxiruhum wa taqwilihim bilmawcisati alxasana wa tarku citaabihim wa xasadihim wa an yuxiba lahum maa yuxibu li nafsihi min alxayri wa yukrahu lahum maa yukrahu li nafsihi min almakruhat wa zabbi an amwaalihim wa nasihati wa tanshiiti himmatihim ila taaati waqad kaana alsalafu saalix radiallahu anhum min tabliixi bihi an nasihatu ila idraari bi dunyaahu wa qaala ibnu batala haza alxadiisu yadullu anna nasihata tusamma diinan wa islaaman wa islaaman bu ko defee laayenti biir ak mboolem jullit ñi mooy nga leen di jéem a jubbanti ci yéwénal seeni mbir moo xam seen mbiri àddina la wala seen mbiri àllaaxira waaye di leen dimbali ci wax ak jëf mooy wax leen lépp loo xam ne moo leen di jariñ ci àddina ak waaye jëfal leen ci lépp loo xam ne mën na leen jariñ man laa jariñ addina ak àllaaxira waaye naka noonu jéem leen ne suturaal seeni awra mooy mboolem lépp loo xam ne moom la ñuy nëbbu te mu doon loo xam ne loo jara nëbbu la nga nëbbule leen ko bokk na ci nga jiñal leen lor yoo xam ne nar naa jëm ci ñoom nga jiñal leen ko ci wax leen ko walla nga dindi leen ko ci seen loxo wala nga yee leen ci cooñ ñu bañ caa tàbbi naka noonu bokk na ci nga xëccal leen lépp loo xam ne aw yiw la leen jural yiw àddina ak yiwu àllaaxira bokk na ci ngeen di digleente aw yiw waaye di moytandikonte aw ñaawteef ci loo xam ne lépp loo xam ne ñawte la boo xam ne diine daf ko sib wala mu xaraamal ko wala moo xam ne mu mën lor nit ki ci àddinaam wala alaxiram bu ko defee nag nga def ko ci li ñuy tuddee ar rift nga def ko ci ak ndànk masalan nga def ko ci ak dal ak ak teey ak kaddu yu nooy kaddu neex yu dal waaye tam nga jéem a sellal sa sa cofeel ci ñoom waaye nga wekk siini mag ba képp koo xam ne nekk na ci ñoom mag nga wekk ko waaye yërëm si ndaw ci képp koo xam ne nekk na ci moom ndaw eh, nga yërëm ko naka noonu bokk na ci ngi leen di waar ci waaraate wo xam ne waaraate woo rafet la ni alquran kani waxee ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan naka noonu nga bàyyi itam moytandiku di leen yedd boo xam ne di eh, bijji ñu di la daw wala ñu lay foñ wala ñu eh, ñu lay mere bokk na ci itam nga bëggal leen li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp bëggal leen li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp eh, ci aw yiw waaye nga eh, moytandikul leen ci li nga xam ne moom nga moom nga moom ngay moytul sa bopp ci ay loo xam ne ay makruhaat la eh, fa kun maa naasi jamian dahraka kama tuhibbu an yakuna maaka bokk na ci itam ngay fexe di défendre siin alal mooy ngay defa défendre seen alal ak seeni jën ak mboolem lépp lu dul lool loo xam ne lu bokk la ci ñoom ta nga mën koo yéwénal ci wax wala jëf walla nga yéeleen ko moo xam danga koy wax moo xam danga koy jëf moo tax moo ne waxad kaana asalafu saalih radiallahu anhum mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ tudde asalafu saalih ne leen bokk nañ ci jotal sa yéene ci mbooleem jullit ñi mooy nga fexey moytandiku leen ci lu leen di lor moo lu jëm ci wàllu àdduna wala lu jëm ci uh, wàllu alaxira moo tax ku ñuy wax uh, ibnu batal wax ne haasihi lxadis yadullu ala yadullu ala anna nasihata wa uxrawiyan nee na ci googu laay biir ci la sa mbiri uh, àddina di yëkkatiku ak sa mbiri alaxira wax juju boo demee noonu koy fekk ci Diyaa'ul Quluub sarxu jalaa jalaa al xuluub nee na am na téere bu ñu tudde diyaa eh, eh, al xuluub moom eh, mooy sarxu téere bu ñu tudde jalaa al xuluub nee na boo waree am nasiha bi dinga ko fekk moo tax mu ne وقيل أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجب nena am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne laay biir ñeel suñu boom subhanahu wa taala ak alquran karim ak yonent bi sallallahu alayhi ak kilifay dini ak mboolem moom waajib la bi maana ah, fardu ayni la ci ñeel képp koo xam ne ab jullit nga waaye am nañu wax lenn ci ñoom ne na mm, fardu kifaaya la fardu kifaaya la bu ko taxawee rek mu wax ci ñenn ne boo demee noonu nga koy fekk ci sarfu shifa nana boo demee ci téere bu ñu tudda sarfu shifa noonu ngay fekk wax jooju nga gis wote googu nga xam ne laay biir kon lu ama am solo la waaye laay biir ñeel sa bopp lu ama am solo la lu jara lu jara bàyyi xel la ndax boo eh, boo dee laay biir sa bopp am na ñoo xam ne laay biir googu nga xam ne moom lañ tudd lépp lépp rek day delluwaat ci mooy laay biir sa bopp mooy danga teg sa tànk ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir bu ne laay biir bu gisee leen ci borom xam-xam yi ne laayante biir fardu fardu ayni la mooy kenn ku ci nekk war na la mooy jullit bu ci nekk rek boo gisee loo xam ne loo war a laay biir sa mbokkum jullit la mën nga koo biir te ko ci xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi fa bi lisaanihi fa in lam yastati bi fa bi xalbihi daal di wax ne fa zalika adaful iman kon kenn ku ci nekk rek boo gisee loo xam ne loo war a jubbanti la ci sa loxo wala nga wax ko sa làmmiñ wala nga naqarlu ko ci sa xol lu war la ci yow am ma keneen ñeneen ñi nga xam ne ñu wax ne booba fardu kifaaya la moom dañ koo teg ci aaya alquran bii nga wax ne moo wax ne a بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن te suratu Ali Imran suñ borom subhanahu wa dellu waxaat kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil kon ñaari ay yooyu ñoom ñaar ñëpp loon wax ñi wax ne ñi wax ne laayenti biir ak mbokki jullit Euh, fardu ayni la ak ñi wax ne fardu kifaaya la kenn ku ci nekk am na aw lay bu dëgër koo ci jàpp rek aw layam dëgër na waaye ala kulli xaal biir moom mënta ñàkk moo tax jataay bii nga xam ne jataay bii ñu tudde ko zaadu moo tax jataay bii nga xam ne dañ koo def mu nekk yóbbalu jigéen ñi waaye euh, romb na jigéen ñi ro ak ba àgg ci góor ñi ñeel képp koo xam ne aji gëm nga ndax li nasihatil mu'minina wal mu'minat jotaay la boo xam ne du caagan ne jigéen ñi rek lañ cey waxal waaye góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ci nekk rek mën na ci am wàllam ci jubbantikoo ci ci bu déggee loo xam ne mën na ci jubbantikoo waaye ci fàttalikoo ci loo xam ne mën na ko fàttalikoo teg ko ci fàttalante gi alquran karim waxoon ne wa zakir fa inna zikra tanfa'u tanfa'ul mu'minin wa ma xalaqtu jinna wal insa illa ndax fàttali dana jariñ ki nga xam ne moo gëm ay teg ko ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne wax ne euh, euh, wala aay bi sunu wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar waaye itam euh, teg ko ci yaakaar xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne am na ci aljanna bunt boo xam ne ëllëg yowmal xiyam ña fay jaari mooy ña daan aw yiw ci àddina waaye tey moytandikuloo safaanu abi safaanu yiw te mooy aw ñaawteef waaye itam teg ko ci li Sëriñ Tuubaa waxoon ne wa'mur bil ma'ruf wa xayyir munkara wansih wa nabih zaxtiraari mankara del digle aw yiw moytandikul aw ñaawteef waaye nag nang ko commencé sa bopp da ngay yee di laay biir ñi nga xam ne euh, euh, xañ na dañoo dem ba mel ni ku gëmmentu dañoo dem ba àddina jàpp ne leen ba ngërëmtil addina jàpp leen ba nu jeex ci wàllu àddina waaye nag su boobaa nag moom na nga ko commencé ci sa bopp mooy na jubbantiku bala ngaa jéem a jubbanti kenn na nga jub bala ngaa jéem a jubbanti kenn lu ko mooy da ngay dugg ci la alquran waxoon ata'muruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taqilun Sëriñ Tuubaa wax na ne inna allaha muayyada umuura haasa diin bi rajulin faajirin kulla xiin nee na suñ boom de léeg-léeg mu jaarale mbiri diineem ji yëkkati ko lool dëgëral ko lool ci waajoo xam ne dafa kàccoore xam ne dafa jàng te jubut muy digle wax naan yàlla nee na yonent bi nit ñi di ci jubbantiku di ca waare diine di ca jëm ca kanam waaye moom lenn jëriñu ko ca ndax la muy digle moom eh, defu ko waaye it la muy tere bàyyi ko loolu mooy atamuruna naas bil birri wa kon loolu bokk na ci li nga xam ne des na ko déggee ci sababu jataay bi nga xam ne jataay boo xam ne dañ koo jagleel jigéen ñi waaye jagleel ko mbooleem jullit ñi ndax jigéen moom dafa nekk lu ama am solo al ummu madrasatul banina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na yaay mooy école bi jëkk bi maana école bi nga xam ne bu ci doom génnee la mu jàng ca école ba rek loolu lay jëfe na yaay moo ci moo ci jiitu kon moo tax yaay mi nga xam ne moom mooy école bi jëkk nga xam ne ci la doom di génnee ko war a waajal ko jara xamal lan mooy diine lan mooy li lislaam bëgg lan mooy li lislaam aaye ak melokaanu jigéen jooju naka la war a mën a mel ba ëllëg euh, société bi nga xam ne ci lay dund man koy yéwénal ci ay jëkkoom ak ay jëfam nekk royuwaay boo xam ne képp ku ko roy da jub moo xam eh, yaay lay doon ci biir ak njabootam wala mu nekk bàjjen ci biir ak wala mu nekk mag wala rakk ci biir ci biir ci biir ci biir ak njabootam lu ci nekk rek war naa mën a nekk jigéen joo xam ne jigéen la juy jub te jubale eh, yiw ci ay waxinam waaye yiw ci ay doxalinam rawat na jamono ji nga xam ne ci ran toll nga xam ne day bëgg méngoo xadis ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne dana dem ba mujj mujjug jamono euh, ñu yëkkati maandu ci buur maandu gi nga xam ne moo war a am ci buur digg digg digg maandu googu du ci du ci nekk waaye yëkkati kersa ci jigéen kersa gi nga xam ne moo war a am ci jigéen digg digg digg kersa ga day yëkkati ko man lool nag lu jara bàyyi xel la ci rawat na ci mbokki jigéen ñi ñenn ci mbokki jigéen nga xam ne alxayaa uxtu diin ma wax ne kersa moom mooy mbokkum diine saay boo ñàkkee kersa rek amatoo diine te li ëpp ci lu bari ci jigéen ñi du ñëpp nag waaye lu ci bari ci jigéen ñi daanaka seen kersa dem na ci seenug waxiin seenug doxiin seenug coliin seen lépp rek amatuñ ca kersa te kersa moom saay bu jeexee rek diine ànd ak diine jeex kon xañ ne dañuy taxalu foofu rek ndax loolu ab euh, introduction la ci xam xamle lan mooy sababu jataay bii zaadu nisaa'il muslimaati li nasiihati mu'miniina wal mu'minaati tey ami fii ci ëtt bii di M-Media Group Nourou Darayni man la kon foofu dañuy wàcc suñu kàddu insha Allah eh, ba beneen jataay dañaan suñu Boroom subhaanahu wa ta'ala defal na tawfiq zaahiran wa baatinan ci barke al-Qur'aan karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lil-Mustafa xayri xalqi laahi manzilatun المسرعين لعوا والفضل عند رسول الله قرار